xam ne day génn ci suñu justice ak suñu ay institution di génn ci biti day wane ni tamit am nañu ay faiblesse ci suñu institution yi dese nañoo gëm suñu institution yi te am nañ ay difficulté bés boo xamee ni rek dañu am mbiru politique tout de suite mu am ay problème ci suñu institution yi duñu déggoo donc loolu mooy ay ay faiblesse yi nga xam ne ak ay déficit yi nga xam ne suñu démocratie interne bi am na ko donc loolu yëpp li nga xam ne moo koy dëgëral mooy toujours waxtaan parce que feebaru démocratie du xeex du xuloo parce que xeex bi bu ñu ci ñëwee xuloo bi ñëw ci guerre bi ñëw ci loolu mooy régulation bu ñu amee problème violence rek lañ koy mën a régler te tey war nañu am maturité boo xam ne ak suñu démocratie bi fu mu toll ak fi mu jóge ñi moytu di réguler suñu démocratie ak violence